ane ane vendredi 27 samedi 28 et dimanche 29 décembre 2019 Kumpentum, capitale culturelle du Sénégal cinquième édition festival Pentium Niani, les 27 28 et 29 décembre 2019 à Kumpentum. la sécurité un levier pour le développement socio-économique et culturel des territoires ci la festivalu sous le patronage de son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal ak Sornam soxna Sall première dame du Sénégal sous le parrainage de maître Sidi Kikaba ministre des Forces armées, un digne fils de Tambacounda, sous le parrainage effectif du ministère de la Culture et de la Communication, du ministère de l'Élevage et des Productions Animales, du ministère de la Santé et de l'Action Sociale, du ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat, de tout le gouvernement du Sénégal. Monsieur Abdoulaye Dia, président directeur général du groupe Fortune Capital, maire de la commune de Demetz, di ànd festival B partenaire partenaire la SICAP SA, la Fondation d'entreprise de la Sonatel, CMU, famille feu El Hadji Bouna Niang ONG Mandimbo PUDC site d'information BIDI Dakar Actu Radio Nyani FM ak conseil départemental bu Pentum, ci M. monsieur Oumar Sy ñuy ci festival bi lu jege fukki junniy visiteur ñu war a ko Tambakunda Wulli Jolof Tambacounda Gambie Congo Brazzaville ci gàttal ci sous-région bi 5 cinquième édition du festival Pentium Nyani. neuf activités culturelles dana fa am ethnie à l'honneur Lepel, xew-xew Bangok événement Bangok Adjuma ñaar fukki fan ak ñaar samedi ñaar fukki fan ak juróom ak dimanche ñaar fukki juróom-ñeent ci weeru décembre 2019 ci Koumpentoum ga ca Tambacounda. Oh. taki garɗen ɗo ko taki potuɗen ɗo ko pour histoire fulɓe haaɓooɓe histoire o waawa windeede histoire o sukaaɓe men mbaawa janngude ɗum janngo ɓe ngannda no fulɓe ɓe ngardi ɗo e ñaani e no ɓe kodiri ɗo e tarihe maɓɓe kono ɗum ɗoon koko heɓi solo te mbiɗen njette heen commission scientifique o nganndanɗaa ɗeeɗe ɗe balɗe fof eɓe ndoga heen eɓe njaha eɓe namno histoire o ɓe binda e, rawane ko histoire soose winda e, ɓennen kadi min jettiɓe no feewi saabu ko heewi hen naati yettima e, présidence par ce que yettima ha to ibadaire waɗama e defte ngollo lawol noon hikka ko onon woni invité ji ɗi ko onon poti haalde histoire moon ɗum tagi hande préfet ari ɗo jooɗade ɗo pour heɗade on kaalon ɗum winde waɗe e kayitaji janngo sukaaɓe ɓe mbaawa janngude ɗum ngannda ko woni ñaani ngannda ko woni histoire ñaani sabu ñaani so haalaama wonaa seɓɓe tan ko seɓɓe e fulɓe ko kamɓe ngadi e ñaani ne woddi noon leɗɗi goɗɗi ngo ardi inne kadi hitaande fof eh, kalnde allah hoddiri fof mo kala min njiɗi ko histoire mum winnde ɓe kaalnano ɓe ngardiri e ñaani kon min mbeɗa yetta fulɓe ɓe fof mbeɗa yetta ho conseil e ballal mo dari walli Euh, conseil o e maire uji ɗi ngandanɗa kamɓene ɓe nanni hen juuɗe mabɓe ablaye ba en e, e, e, e mamadi thiam e vraiment e aladji ba en ɓen fof nanni hen juuɗe mabɓe ɗen jettaɓe ɓe gandi affaire o hona conseil jeeyi hona minen jeeyi affaire o ko onon jeeyi par ce que ɓooyi ɓooyi festival o ma rutto e moon tawa ko conseil département wonta hen ko partenaire rek kono vraiment minen jetti on no feewi kadi mbiɗa yette hen euh, parin mawɗo o mo gandanɗa woni maître sidi kaba sabu neɗɗo so waɗi hunde il faut ko yimɓeɓe ganda ko waɗi par ce que kanko innira festival o te vraiment o waɗi hen juuɗe makko par ce que o hokkiri 8 euh, euh, euh, million o kadi joni joni ni chef de cabinet makko o joni yettoɗo ne adda 2 tonnes maro on noon so waɗi ɗum o taki yimɓeɓe foti tinde ɗum meɗen jettamo meɗen manamo saabu vraiment euh, so so darakino hen wawno festival o euh, conseil o heddoro e ñamande heɓa hen caɗele kono neɗɗo so waɗi ko moƴƴi tan il faut ko min kalno département o ɓe tina ɗum ɓe ganda maître sidi kaba nangui e affaire o waɗi hen no fewi te janggo ko kanko ma o ar o arda e délégation makko par ce que janggo e hoore mum ko avion nawatamo ha tamba so yettima tamba euh, so udditi panel o rek o arayet ɗo o plus tard 11 midi kono noon ɗum no yo yo yo yo gandu ɗum ko ministre région o o wallitima département o et kadi même même centre culturel euh, centre de formation professionnelle ko kanko waɗi ɗum plaidoyer to président ha gandanɗa vraiment euh euh dum euh, euh, en kedi dum ne mahe e département ji di fof kono e 15 sappo e joyi département aɗeteɗe heɓde centre formation ɗum ko pon dum ne tawa hen kon ko kanko darini en ɗum um il faut ko en jetten mo manen mo minen salmina kadi koɗo amen koɗo amen ummiɗo kongo gandanɗa ko conseil département toon o woni en même temps ko présidence o woni omo jogi golle kewre te kadi ko be lambe toon so jii ko ɓorni ko gandon ko ko ko, ko laamɓe uh, eh, kamɓe laami toon kanko ne o ummima kongo o taƴini hoore makko biye o arti ko président président maɓɓe taƴinimo biye o ardi o wari ha dakar conseil département yahanimo dakar addimo ga kon gandon ne festival o natti won uh, uh, uh, sénégal tan festival o yaaji kadi hande ma en hoɓɓe men ummotoɓe gambi kamɓene maɓe jottoɗo hande gandon ne kadi festival o natti won sénégal ne yaaji kon min jettimo no fewi min manimo miɗen mbiyamo bisimilla makko fi e ɗo e département coupantum ɗo e ñaani kon mi jutanta haala sana yettude on mande on e mande préfet sabu ko abou haali e préfet ko gongo ko préfet liggotoɗo ko préfet yiɗɗo yimɓe kala nde nodduɗamo o jaabotomo kala ko nde garɗa bureau makko o watte recevoir on noon vraiment o sa yi hande conseil département ne waɗa résultat uji ko kamɓe kollata men lawol kon miɗen jettamo miɗen ñagonomo yo allah ɓeydu martama makko mais en tout cas mi jutnata haala mbeɗa haɗo ɗo mi woppira préfet mi rutta préfet konngol ngol wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin monsieur le maire monsieur le conseiller départemental, monsieur le secrétaire général euh, communauté Habobé mesdames et messieurs aujourd'hui c'est un, un grand jour euh, ce jour est consacré à la communauté abobé d'Ignani. du Comme je l'ai dit tout à l'heure en guise d'introduction, cette communauté a toujours vécu avec les Mandeng. Et les relations qui les lient sont des relations séculaires. Tout à l'heure, la communauté scientifique que je félicite au passage viendra largement sur l'origine des Abobés, leur mode de vie, euh, la culture à mais aussi les relations avec les autres communautés d'Ignani. Euh, je ne vais pas continuer dans cette dynamique, peut-être dire Banderabé Bandera Banderabé Fitobé, Banderabé Djalobé, Banderabé Djaoubé Dali, Banderabé, Saranabe, mi misal on ngi di nuyel ñep di len dalal jamm fi ci la te souhaite ñu encore une fois la bienvenue à notre hôte monsieur Pambo bi nga Congo Brazzaville maa ngi koy wax sànq si suba euh, boo xam ne daf fi ñëw te yanoo ay casquettes yu bëri wax naa leen kii toog buur la fa mais aussi fonctionnaire la conseiller la si euh, euh, du président du conseil départemental du ay casquettes yu tuuti mu def honneur ñëw teew si sunu festival bi nga xam ni festivalu ñaani la te si lañu compter dama koy faral di wax pour le développement de l'Union, te ce lu lu le am solo la lu ñëpp war la di remercier maire yi fi teew pour ci présence dama ci insister wax ni maire yi festival la festival au conseil départemental Le festival départemental département certes mais département est constitué moo constitué ay communes soo les 10 communes qui constituent le département nous avons un festival bi tey waaye nag initiative bi dafa jóge ci conseil départemental mu piloter une un événement aussi important encore une fois euh, ñu ngi sant aboobe yi fi toog yëpp di leen masawu si ci coono yi parce que ñu ci bëri am na fu sori fu ñu jógee euh, toogaay bi yàgg na wante liñ fiy wax dafa am solo. Au passage, de remercier le comité scientifique. Voilà, nous De remercier, aussi le comité scientifique qui a fait un travail. Si am communauté a ils sont à, l'honneur. Euh, nous accueillir euh, un peu le chef de cabinet du ministre de la culture, euh, du ministre des forces armées bi nga xam ne moom parrain wu festival bi euh, di souhaiter rek activité bi ñuy def nii bu am solo bi ñu def ko si commencé ko si bisimilah rahmaani rahim eggale ko si alhamdulilahi rabil rabil alamin encore une fois loolu lañ installé ñuy wax ba le chef du du cabinet donc jox parole bi peut-être au comité scientifique tout à l'heure ñu pré ñu def présentation. Euh, bi nga xam ne préparé nañ ko muy doon liggéey bu am solo liggéey bu riche un travail scientifique soo ko xoolee rek euh, soo ko parcourir di nga xam ne lii travail bu ñu fouillé la di leen si euh, féliciter au passage di wax ñëpp rek nañu am patience pour déglu leen avec intérêt pour que lañ fiy jëlee nekk lu nga xam ne ñëpp dañ koy mën a am ko une ko. Bah, merci beaucoup. Euh, l'année dernière, en 2018, on avait mis le focus sur euh, les les Mandeng d'Ignani, qui sont les fondateurs du royaume d'Ignani. Cette année, c'est les Habobé qui sont à l'honneur. Pourquoi Parce que les Habobé et les Mandeng euh, ont longtemps cohabité dans le pratiquement, ces deux ethnies ont cohabité et ont partagé beaucoup de valeurs. Donc, à la suite des Mandeng, logiquement, c'est les Habobé qui devaient venir. Et c'est pourquoi cette année, nous avons mis le focus sur la culture des Habobés du Niani. Et comme vous le savez, les Habobés ont une histoire et une culture très liées à la culture des Mandingues. Et comme vous le savez, ils ont survécu euh, dans ce terroir hostile. Et le Habobé, par, définition, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Il se déplace beaucoup à la suite de son troupeau. Et c'est des gens qui pratiquement ont essaimé dans le Niani donc, euh, à côté des, des Mandingues. Et les grands enseignements qu'on peut tirer donc, euh, à la suite de cette étude, c'est que c'est des gens qui ont beaucoup de valeurs, qui ont gardé ces valeurs-là et qui ont gardé beaucoup de secrets avec eux. Nous avons fait un travail de deux mois. C'est juste une ébauche. Donc, euh, à la suite de ce travail, nous exhortons les étudiants, surtout en sociologie, à s'approprier le travail et à l'approfondir davantage pour qu'on puisse connaître davantage la culture des Habobé du Nous avons fait le programme pour am fay fii ci Koupantoum festival euh, penchum que parce que wak des yàlla dañoo togon rek nopi jamono bi di dog te ñun ñu am ay culture yu fort culture yu am valeur te ñu bàyyoon ko mu tedd waaye bi ñu créé festival euh, départemental di Ñaani gis nañ ne wax dëgg yàlla li fi amoon lu waroon a feeñ la awaatee mais amaan na ci jamono bi la ko yàlla dogal. mais programme festival bi moom wax dëgg yàlla rafetlu lañ ko bu baax gis nañ ci suñu bopp bu baax du différence keet yi fi nekk parce que boo xoolee daaw quatrième festival bi ñu ngi ko jagleeloon indi euh, Mandeng ñu jàngat ci ay jàngat yu bari Mandeng nekk euh, ethnie bu nga xam ne ñoom ñoo euh, sànca département bi mais après biñ sàncee département bi poliha boobu bi ñoo ñëw fekk leen fii mu nekkoon àll bu lëndëm bari ay rab ay gaynde ay ñay lépp ñu toog fii di xam moom ba mu mën a nekk ay dëkk ñu dëkk fii dëkkuwaay bu rafet diggante euh, soose yi ak ak euh, polohaabo bi mais itam ñu am ay jaar-jaar yu riis yu nga xam ne tey buñ ko càmbaree binda ko dana nekk lu nga xam ne bu ko sénégalais yi jàngee suñu doom yi ak suñu seet ak suñu seta setaat yi day nekk voleur bu nga xam ne wax dëgg yàlla dana jamale réew mi kanam te ñu ngi lancé it appel population bi yëpp nañ gën a jàppa ci parce que département bi bi muy organiser bi nekkoon na festival département mais comme ni ma ko gisee tut festival département Koupantoum mais festival dans le monde parce que tey yeneen euh, réew participer nañ ñu bàyyi ko ci sous-région yi waa congolais ñu ngi fi waa Gambie ñu ngi fi te jàpp naa ne année prochaine yeneen pays dina ñëw participer te de mën na dem ba nga xam ne dina laal cinq continents yu nekk ci monde bi yëpp dina ñëw di participer ci ci festival département Koupantoum parce que loo am importance la. 27 samedi 28 et dimanche 29 décembre 2019 Kumpentoum, capitale culturelle du Sénégal 5e édition festival Pentum les 27 28 et 29 décembre 2019 à Kumpentoum. la sécurité un levier pour le développement socio-économique et culturel des territoires ci la sous le patronage bu son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal ak le soxna Sall première dame du Sénégal sous le parrainage de maître Sidi Kikaba, ministre des armées, un digne fils de Tambacounda, sous le parrainage effectif du ministère de la Culture et de la Communication, du ministère de l'Élevage et des Productions Animales, du ministère de la Santé et de l'Action Sociale, du ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat, de tout le gouvernement du Sénégal. Monsieur Abdoulaye Dia, président directeur général du groupe Fortune Capital, maire de la commune de Demetz, di Andeti festival bi partenaire partenaires la SICAP SA, la Fondation d'entreprise de la Sonatel, CMU, Famille Feu et la ménager Bounanyang, ONG Mandimo, PUDC site d'information Bidi Dakar Actu Radio NYANI FM ak conseil départemental bu Pentum ci monsieur Oumar Sy ñuy festival bi lu jege fukki visiteur ñu Konyani bayé ko Ñaani Wulli Jolof Tambacounda Gambie Congo Brazzaville ci qui ci sous-région bi 5e édition du festival Pentum Ñaani 9 activités culturelles dana fa am ethnie à l'honneur léppal xew-xew Bangok événement Bangok ajjuma ñaar fukki fan ak ñaar samedi ñaar fukki fan ak ak dimanche ñaar ñeent ci weeru décembre 2019 ci Koumpentoum ga ca Tambacounda. Oh.